léegi nii euh, muy jumbo dagal la bëgg laa jox ñaari avance te promoteur mmh. bu demee bay jox mbër ñaari avance rek gis na avenir u mbër ma gis na xam ne ne mmh. mbër mi am apporteel tey jii tey jii bu la promoteur joxoon avance ñaari avance na benn bi ñëpp mmh. kenn koy bëri deuxième bi kan nga bëgg a ci beneen combat bi dama jox jën moo gën nekk ma ak sax déggu ma nga sama combat ak combat jën gaale yi. déggu ma sama sama sama combat ak ne a nekk xale jëlee doole maa ko dàq maa bëre dégg li ngay wax day dagg li ngay wax day dagg tegal téléphone bi normal ñu dégg la jën jën maanaam moom lamb lamb du ko dàq. lan moo tax nga ciblé jëm génn kere ne seen combat day neex yéen ñaar lan moo waral loolu. parce que ay adversaire taay amul loo xam ne ëppale na ma ko. bu dee mobilisé maa ngi ko dàq mobilisé foofu. Hmm? bu dee mobilisé maa ngi ko dàq mobilisé xolo xolo di bind booy ñaar xolo gars di bind booy ñaar naan sa rêve la pour nga bëri. <laughs> mais mais mais mais yaag géen kee rek ku nekk teg tànk gauche loolu damay ragal ngeen damay ragal ragal ngeen lu ko dàq géen kee tek tànk gauche ma teg tànk gauche joon kee sutu ma ëpp ma doole yaa ngi dégg mm-hmm. baa nga mu rusé amul lu ma bëlee dafa ma jiitu si làmb rek hmm? waaw dafa rek ah combat bu doy waar a ngi de jën geer mu ron la fi rek yaa daan roo rek rek ni lu bërëg benn booy te mu da kaa jox loxo te ma continué woon nii waaw su may bëre woon waaye dina su may bëre woon droite laa koy tegal sax mu réer boo ko tegalee droite day réer day du ak rek bi ci ay wax nga wax nga yow yaa ngi faral di xew war ngay waxal de. man dinaa jëli ji jën kër suba wala ginnaaw suba dinaa ko indi ci live bi. waaw. Mm-hmm. Mm-hmm. dinaa ndax ni ngay ñemee. ah ni ngay ñemee jën kër nii jën kër dina ci wax. man man Fadam ñu ñu ñu ma mos a ñeme ñëpp bu làmb jaaree képp seen gimiñ. Hmm? ko ko mos a signaté yow dama laa ñeme rek xamal ñeme naa eh koku di wax ci ginaaw nek mo mu batam alon do ba ni yasi nelaw am. Ah? ba day ñu fini hmm. hmm. mais mais mais man mais man li sa problème moy da nga jël ñet ñi gëna nek gënd ci lamb nga ne leen combat yu bu taxawé moy gëna yomb ci sa carrière. ma ne la kan. nga ne Zarko. ama neex nga ne songu lamb am. jéen nga ne combat bu taxawé moy gëna yomb ci sa carrière. te lolu Jackson Ah, tey jii loolu daf ma jaaxal man lool daf ma jaaxal lool man. waaw aw ne benn kàlla benn <coughs> benn tur la am ñoom ñoom naa fàtt. mais booy bool booy bool bërikat la te ama neex da ko fil. su <laughs> nekk benn su nekk boobu benn kàlla la ko def. <laughs> ama neex man jaaxal na mo ak ama neex ni mu nekkee champion. Eh, champion daa amoon dëkk champion champion boobu léegi puso paase gars yi lu ñu bëgg yomb na leen faram. nga bëgg toog ak quatre ans doo bëre booy di bëri daan nga bëgg ne leen booy dina dab mais loolu c'est impossible. Hmm? ah man de. damaa bëggoon a woo man da ngaa mën a toog de. damaa bëggoon a woo ama neex fii di la tooñ. mais dëgg laa nga wax yow mënoo toog quatre ans bëre woo di nekk États-Unis di liggéey ñëw gis Zarko nu mu def Zarko mu ne États-Unis yàgg kii Espagne yàgg fa ba mu ñëw daa wàcc booy jël booy pour bi waat yéeg. Hmm, hmm. loolu moo tax mu dekk éranger bu heure fa neexee ñëwaat ñu day bëri ñu ñu tolloon te ñooñu di bëri di daan booy di bëri di daan loolu c'est impossible dañuy xool loo xamante ne lu jaadu quoi lu mën a nekk man du ma du ma dépassé mbër du ma wax mbër loo xamante ne xam nga day déborder. parce man yàlla ñu ma noonu chaque jour da wax loo xamante ne lu lu lu lu lu présentable la ma teg ko si taabal bi comprendre nga mais am na ñax mënoon nekk voyager quatre ans cinq ans booy di rey seen boobu di yëg dindi wàcc di da bëri di daan seen mobilisation di a yokk comprendre nga. Mhm. nga ne yow du ma na nekk. ah loolu day loolu day loolu nag mais nag tey nag xam nga na champion bu mel ni Jackson nekk ndaanaan ci làmb nekk xale boo xam ni tey jii ñett ñi nga simle ci làmb tey jii daf ma jaaxal yaakaar na ne ku ne ama neex laa bëgg a bëreel. jéem kii rek bu ñu dajee fon combat bu yomb lay doon Zarko moom. Zarko man de ñëw maa wax ay waxam moom Zarko daa xew. Zarko guruma xew Zarko trois victoire la la la la teg la man sept victoire laa teg man guruma xew. moom trois victoire la teg man sept victoire laa teg man dama daan six victoire am ñaari défaite ñëwaat daan sept victoire yàlla ma yàlla suturaal nag yàlla bu ñu beew yàlla bu ñu rëy. mais Jackson Jackson palmarès bu doy war waaw dama ñëw tegle six victoire awma defet ñëwaat tegle benn saison ma defet boobu léegi nag yàlla mosul amaan naa sept victoire yoo xamante dama ko tegle. mais mais mais yaa ngi hmm? tey jii sa combat koy bay xel. waaw yooyu yëpp mooy loolu noonu combat yooyu yëpp xam nga àgguñ si daal. yow Mama Lamine caatu yoof. Hmm? bàyyante leen xel de. voilà moom boo fi nekkee sa morom di bëri di daan ngay di ngeen bàyyi na xel quoi. mais ndax yaa ngi bàyyi xel ma Malamine. waaw champion la mbër ay génération lañ. te Fadel ñoom ñëpp ñoo ma ñoom ñëpp ñoo ma gisul laa ma fuuf de ñoom ba ñuy bëree bàyyi ko ma jàng sax. 2016 hmm? daa dugg si avec deux combats. dama 2016 daa dugg si ñoom ñoom ñoom jur si laam foofu ay jën kay rek ba ñuy bëree boobu bàyyi ak ma jàng sax jën kay rek Pape Mbaye ba ay jën kay rek yu super baal la mais ba ñuy bëree man bàyyi ak ma sax jàng bay bay waxu laam. jël waay. billaahi billaahi wallaahi man xaw ma ñaanal laam na de. non non mais combat yi may wax billaahi lu may jaan man man deux mille deux mille onze vingt cinq juillet deux mille onze laa ñëw Dakar pour jàng méj maa ñëw vacances delluwaalo xam loolu yàggul ñu fi jàng fi méj mbapat fi ba dugaat fi arène. jàng si méj laa la wax. man de li ngay wax Zarko nii day jaaxal na ma lool wax dëgg yàlla boo nee Zarko hmm. trois victoire la tegle yow nga tegle sept victoire. mën na la am neex nga ne ama neex benn turu la am mën na la jéem kere nga ne waaw mooy gën a yomb sama carrière droite laa koy tegal droite droite laa koy tegal du bëri day réer jéem kere pied droite laa koy tegal hmm? waaw day réer day réer déet waay man maa dëkk maa lu ma leen ñëwee dëkk ma maa leen ñeme dëkk leen suñu dayee si biir géew wala leen lu mu leen ñemee. waaye Jackson. stttt aywa xale baa ngi décidé nag xale baa ngi décidé nag coow laa ngi commencé nag ah hmm. mbër feeñ na de hmm, hmm. mbër feeñ na ah, Jackson nga ne yaa leen dëkk nga ne yaa leen dëkk man maa leen dëkk man maa leen ñeme su ma leen su ma wala leen lu mu leen suñu dee si biir géew muy jën kayre di Zarko di am waaw. ah man de xamatu ma man de amatuma dara lu mu wax man. wallahi lu ma leen suñu dee ci biir géew ma wan leen lii laa leen ñëwee ma gis Zarko ci biir géew muy indi doole jox ne indi sañ-sañ indi ñeme pare lool. waaw loolu dara loolu loolu loolu maanaam fu mu doon dayal la rek mais mais mais mais ñun tamit moo loolu noonu de yàlla yàlla ñuy kattanal tamit. kon yow Zarko ni muy ni muy def mbër yi nii di leen duube di leen sowu mbaam mi di leen di leen agressif bi géew la bu yow dina ko def. non man man man ma def loolu noonu. Hmm? non non man sama morom góor ma du ma def yenn yi man góor du ma def yenn yi du ma tooñ mais mais mais man mais nag tey moom wax dëgg yàlla mosuma gis xale bu décidé lii ci làmb mosuma gis waaw ñun tamit xam nga discuter discuter moo tax ñu ñu jàpp suñu boobu léelu suñu léelu xam nga. Mm-hmm. concentré suñu suñu tooñ ñu kenn du fréquenté ñu bëri xam nga donc xam nga am na lu ñu bëggal suñu boobu quoi xam na lu ñu bëggal lu ñu koy may du ay wax moo ñu koy may dara lu liggéey bu metti. Mm-hmm. chaque jour rek bu ñu waree mm-hmm. fi ñu mën a foofu quoi comprendre nga. noonu la mais nak ndax Jackson ni nga ni nga soxore nga ni ci lamb boo continuer nak di nga am combat ndax gaay nañ da ngay dóore rek quoi nga soxor trop quoi ne bro gaay ñu gis loolu la mais man bëri laa gën gis bëri laa gën a mën ay doori sax. wallahi bëri la gën man nga ay doori hmm? mais nak mais nag waa Fass moom nangatuñ laa jël mom ba nga duggé Fass ba légui waa facilité. waaw ah xam naa ne mooy loolu dafa amagul adversaire rek mais ñum ragal wuñ ma ne parce ay champion lañ jël ay mbër. ah Gris 2 nee na bu gisee xale bu saf-saf dina waaw. la <coughs> may sans. kan la la may sans. Gris yooyu eh, Jackson bu ñu joxoon sa combat Gris 2 da ngay jël. waaw dama dama jël. Eh, Jackson da ngaa eh, Jackson Gris 2 Maodo rek Gris Bordeaux. gis nga Gris 2 ah du mbër comme si moom. non xanaa yow Gris 2 nga wax Gris 2 benn Maodo. waaw lan si moom laa xamul man de xamatuma gi dara léegi. waaw léegi mbër la comme yeneen mbër la maa ngi koy nuyu sama mbokk taalibe Seex ah. man maa ngi koy nuyu sama mbokk taalibe moom comme moom nee na moom dootul nuyu wër sax. ah moom kay démb yaa ngi déglu ko déglu ko live yi lim wax li mu na moom dootul nee moom du sëriñu benn mbër ah gars yi dañu koo ragal kon yow ñuy def grille de sëriñ yow bokkoo ci. sax. Hmm? ci wax la wax dal naw naa ci wax quoi mom mom wax dëgg yalla fu mën a communiquer loolu moom rek ci roy ci lolou mais baye bo xal sax fu ren bëri day bëri yow yow ñeme nga bëri Gris 2 yow ñeme nga bëri Gris taxaw deug sa. dafa man ci ragal ndax Gris 2 nee na Gris 2 amul benn bu ndax ñeme taxaw ci ah, morom la way am bu ñeme taxaw ci morom mi ñeme ñoo taxaw ci karam mais rakam ñeme na taxaw ci karam waaw. <laughs> mais Jackson xanaa ni ngay imposer mbëri ko imposer Gris 2 xanaa. waaw daa loolu. ak Gris ci làmb ni tol toll. ah xam nga réer mi matul yaa ngi dépassé yaa ngi dépassé Gris 2 nag nga ne nga ne nga <laughs> moo daal ko baax la daa mën na communiquer moom loolu la ñuy si moom mais amul loo xam ne xel si moom. waaw. <coughs> non man nag man nag wax dëgg yàlla wax dëgg yàlla combat yi ma bëgg. combat yi ma bëgg. Hmm. maa ngi nuyu Youssou Ndoye bu hmm. baax di nuyu Youssou Ndoye l'international bi. sama waa maa ngi nuy Momo borom États-Unis sama waa ji Momo Momo bàyyi nga ma maa ngi nuy ñoom Bousse Bousse hmm. Kitchop gars yëpp a ngi ci biir di la seetaan ah ndaanaan yëpp a ngi lay seetaan. maa ngi nuyu amateurs yi nekk diaspora bi yéen ñëpp. képp ko xam ne mm. fan Jackson nga rek ñu ngi lay nuyu bu baax di la ñaanal yaakaar naa ne lim fi wax Zarko ñëpp dégg nañ ko nee na Diène Kairé ñi moo ko jël ndax ñoom ñaar ay adversaire ta lañu nee na a neex benn keneen la am waaye man li ma ci gën a jaaxal nag mooy Gris 2 mi nga songu tey jii Gris 2 moom wax dëgg yàlla duggoon nga faas dóor pam doy mu daanu xam naa loolu ko xaw na xari ah mm. te yaakaar naa ne bi nga pam doy bi daanu moo ko indi moo ko indi waaw moo ko indi. nga jël Papa Mbengue mu daanu ci kanamam. waaw moo ko indi ci kanamam kay. léegi maa bëgg coow. ah Gris de nee na gars yi ñu mun koo jël man de loolu sa problème. waaye day. ah. loolu de jeex na fi moom loolu moom jeex na fi tàkk tàkk tàkk tàkk Yeah.